mujjee moom bu ci mujjee moom mooy la docteur romain xamal leen ne tey aluminium mi nga xam ne existé na ci biir vaccin yi nu mën a nu mën a andee ay ay forme cancer léegi nag ñu bëgg ñoo force ñun vaccin yi gis nga tey ji ñu fi ngeen fi gis ñëpp waxoon naa leen ko waxati ko te yàgg naa leen wax nee naa ngeen jékki-jékki ak ay explose ba nga xamante ni da ngeen di gis nit ñi ñii naan damaa am grippe nangam naa am du grippe lan la ay corona la corona la corona la mu neex leen mu naqari leen ne corona la léegi corona boobu noonu corona boobu noonu suñu borom moom dimbal lu ñu ñuul ñu am taux d'immunité bu taxaw bu dëgër bu tax ñuy résister c'est vrai nag dina yóbbu ñeen ñu feebar ñu bari mais corona ñun andiwuñ ko fi ñun kerewuñ ko ñun suñu yoon ne ko ci corona. mais ñun ñu doon ñu sa ñu doon ñu doon sensibiliser ci corona naan dee leen laabewu dee leen di distanciation yi ñu ñu tëjoon naan couvre-feu naan nangam ñoo ñoo njëkk def def ay mumbaay ba pare tax ñu jox ay leçon ba pare li proposé ay vaccin yi nga xam ne man leera ma ne ñoom vacciné wuñ ci vaccin yooyu ñu vacciné kan moom a garanti ñoom vaccin Pfizer yi la kan moom wóor na seen vaccin yi vaccin Johnson Johnson yooyu Johnson la pourtant tout à wax naa sama benn grand attention man du nekk kenn champ am

je préfère ma dire leneen parce que c'est africain 100 africain ba lekk ci problème cancer je ne vois pas pourquoi Covid 19 bi ñëw ndax histoire mais vaccin rek pour que mais Covid 19 vaccin malheureusement pour ñun gis malheureusement un an un an mooy amul un an zéro vaccin du xaaj du jeex taxaw ne ah vaccin yi fiable na taxaw Pfizer ne benn dose ngeen di jël ba mu ne ko Pfizer ne ñaari dose ngeen di jël te pourtant y a des gens yoo xam ne dañoo vacciné ba pare amaat corona. léegi nag man côté boobu noonu je le dis et je le répète man côté boobu xalaatuma vacciné wu lu tax ma vacciné wu ñoom bu ñu vacciné wu pare am problème le gars qui me dit que tu es très discipliné nangu naa ndax booy xool li nga xam te ni mooy tuberculose 29 ans lañ toog avant ñuy gis vaccin bi boo xoolee li nga xam te ni moom mooy 15 ans boo xoolee li naan tétanos toog 14 ans boo xoolee li nga xamante ni pilomé. mooy plioménique 9 ans sans trouver vaccin mais à corona un an un an moins d'un an de trouver autant de vaccin yu mës a existé ci àdduna bi léegi xam Nous wax ci lan la ñun na je jël suñuy masque mooy jondante suñu biir mooy ci rassemblement très très point très bas. mais atunum confinement économiquement mënuñoo suivre ñu ñu tëj ci kër yi économiquement mënut a nekk parce que 1000 milliards yi nga xamante ni dugaloon ko ci Covid 19 bi wallahi bu ñu 100 pour les sénégalais 5 pour ñu jotuñu et te fi à Djourba, les artisans m'ont carrément di ñu 100 francs ci et yi leen jagleel 4 personnes lañ wax la ñoo jot 4 personnes imagine ces gens là nga bëgg leen a Qui n'est depuis Louga. imagine tey jii combien de personnes tey nga jëlee bëgg leen tëj xañ leen seen liggéey mënul ne état bi tey ba mu commencé waxoon naa leen fekk dafa commencé jël ay masques distribuer ko Sénégalais yépp jël ay mesures que nit ñi di sol seen masque ñoom ñu commencé ko bàyyi nit ñi ñuy liggéey xoolal dina dem ba nga xam te ni xoolal barrière humaine bi mooy téye corona bi waaye alhamdulilah barrière humaine bi na ko téye seen borom rek moo ci mën dara incha allah da koy téye. ndax nee naa leen vaccin yi muy passeport sanitaire bi ñu nu bëgg a forcer ñu ne ku ko amul par exemple d'ici quelque temps France di bañ dama ne France bi nga xam créé nan nga xam ñoom moom Pasteur Allemagne partout en Europe les gens disent non bañ nan vaccin bi parce que amul benn garantie des milliers de gens ñoo gën défilé manifester ñom accepté wuñ passeport sanitaire parce que bëggu ñoo vacciner wu am nañ ci droit parce que ñom amagul leen leer te nak histoire da leen jox raison surtout fi Afrique ndax bo xolé histoire bi ci course entre ñaari dëkk pour ku ëpp ki ñëk a trouvé vaccin lu naan poliomyélite entre France ak États-Unis dañoo ci signé ben convention loolu moo ñu tay Sida loolu moo ñu Sida Congo ëpp. Il euh, y a quelqu'un qui m'appelle de l'étranger, je ne sais pas qui c'est, mais après je vais, je vais, je, je, je je, après je, je, vais, mais je, je, je, ko. je, nga vaccin yi nga je, je, nañ inventé ko fi Afrique ay ravages je, fi doon def avant muy baax pour Africains. ay donc ñun amuñu man je, une garantie. tey ñi ñi du ma ne kenn bu vacciné wu de waaye man de amu benn garantie pour vacciné wu te du ma ko def du ma ko def du ma ko def pourquoi parce que tey histoire jox nañu raison ci vaccin yi plusieurs fois mooy bi ñuy bi ñuy bi ñuy jëlee waa Congo di leen testé moo tax loo ci gis fa la mbir fa la sida ñu ko feeñee bu ñu jëlee leen dëkk di leen teste ñaata yoon lañ fi jël nit ñii di leen testé manam di testé ci ñom ay vaccin fi Afrique mais loolu xam na ne mënatuñ ko def lu ñu def maintenant xam nañ ne c'est lucratif ndax États-Unis ak France bu ñuy course ci lan def erreur de manipulation ndax yàkkam tey ku ne trouvé ko ba tax ñu def ko donc pour dire aux gens ne leen juste pour leur dire que ne leen ku neex mën nga dem nga vacciner yi c'est bien mais vaccin bu doon sénégalais moo ko defal tekk fu leer ñu njëkkee ko ci suñu dirigeant yi ba ñoom ñu wér ñu am contact ak ka nga xam ne dafa am feebar bi ba pare man boobaa dinaa mën a am kóolute mais man wóolu ma vaccin yi du ma nekk porteuru kenn du ma nekk champ magnétique bu kenn du ka nga xam ni 5 bi day ñëw di mu gouverner sama yaram mukk nano médecine bii nga xamante ne dañ ko bëgg teste tester pour seen seen à leur fin pas pour jël protéger askan wi pas pour faj leen mais à leur fin parce bu ngeen xoolee chronologiquement ci même logique bi Macron dafa génne ni xool on ira ensemble ci nouvelle ordre mondial bi même chose que le Macky Sall wax waaye ñun bëgguñu ordre mondial ñun bëgguñu ko contrôler ñun bëgguñu ko ñun bëgguñu façon bi ngeen def ak ñun bëgguñu ko léegi nag nee naa leen kum neex ka dem vacciner jëw mais wallaay wal kitaabi taux d'immunité bu nu am moo gën a fort vaccin bi fuuf mo gën a fort fuuf c'est vrai hôpital fess fees na leen wax d'accord mais kan mo fessal hôpital bi kan mo la responsable moo ñu defoon seen tournée économique amul keneen kan mo responsable mo ñi nga xamante ils sont là ñaata ñoo vacciné waat corona ñaata vacciné waat corona man lu may fajj la xam xawmako ma ko ci maam yi man je préfère de Madagascar ñu animé Covid organique bi armat xoolal artémisia bi je préfère que utiliser ko ma utiliser vaccin du Pfizer du Johnson Johnson bi du Ben bu may utiliser xalaatuma ko sum aduna te vaccin bi dili si nek ndax suñu 1000 milliards yi def nañ ko ci ci suñu Covid 19 ana lu mu jariñ bonne protection la ñu ci lan la ñu andil non seulement ñu waxoon dañ leen aider aidé wul leen non seulement kenn juge wu suñu 1000 milliards non seulement tay na suñu activité gën noo ñàkkloo gën noo troxloo te teewul corona bi ñu ñëwaat na gën a amaat doole ñu ñëwaat na gën a sonal mën a sonal sénégalais ñun nag ñu ñuy def mooy jël suñuy responsabilité takk suñu masque wala boog du moytu wante xonet xibaar mais grippe yi ñu di gis yëpp ay corona la seulement yàlla moo nu may nit ku ñuul ñu dëgër may nu dëkk dëkk bu tàng ba tax ñu ci mën di génn donc di wax gars yi nan leen gëm suñu bopp ndax le temps que nit ñi dinañ defar ay vaccin dinañ ko imposé di am idée dinañ ko imposer di am seen système scolaire bu taxaw dina ko imposé di ko xoloon di segg lu bon dina ko jox dina ko imposé le temps que ñu jël suñuy suñuy ressources dina ko sàcc di xoloon diñu imposer seen i produits yu leen neex ñu ne diñu naan bëri na boisson yu ñuy dugal fii moo xam leen ko ci leen boisson yu yu ñuy dugal ci dëkk bi lu ne mën nañ ko ci def lu ne ngeen naan ko lu ne mën nañ ko ci def parce que loolu doo ko broyé da ngay naan rek sa rek naan mu jàll ci leen ko bu baax

ñom seen idée am seen am d'accord. ñun idée am suñu gis-gis am idée nan ñu nous ak suñu gis-gis may nous ku def sa le projet de la ñu gëm lu le projet la l'avenir. la gëm lu le projet la l'avenir États-Unis ñoo fii di fi immigré Nous loolu lañ gëm te loolu ñu droit parce qu'on a tout si on a tout si on a tout vraiment on n'a rien besoin de l'autre on n'a rien besoin de l'autre culturellement gënuñu taxaw techniquement gënuñu taxaw scientifiquement gënuñu taxaw ak leneen leneen nga xam te ne ñoom gënuñu taxaw léegi nag comme que ñoom gënuñu taxaw donc ce qu'on a besoin mais booster les gens les stimuler pour leur dire que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs depuis la nuit des temps y a mën ci dëkk yéen a mën ci àdduna bi pour que monde bi mën a avancer Afrique mën a avancer loolu moo fi muy auto muy côté euh, industrialisation muy côté science muy côté nangam ñu former suñu jeune ci côté formation bi d'abord da fay commencer xam sa bop ci littérature ñu former ni suñu mag suñ Moussa Ka dama koy wax du moroomu kenn kum neex kum nakari du moroomu kenn par rapport ak ñi nga xamante ñom ñoy bindikat bindkat

ja lépp lu ñu jàngal ci école tout est faux dañoo bëgg suufeel ba nga xam ne ñun du mujj gëmal suñu bopp duñ gëm dara yaa même dem a des sénégalais qui te dit que waaye ñun mënatuñoo demal suñu bopp waaye c'est impossible waaye ñun doon dépendre ça veut dire que tellement préserver moo tax damay profiter occasion bi di remercier ñëpp di remercier képp koo xam ne yaa ngi xëy rek di góorgóorlu pour pour Afrique yaa ngi xëy di góorgóorlu pour xëy di góorgóorlu nee leen nag malheureusement ñoom ñun bu ñu ñëw fii di wax ay pour développer le Sénégal ñoom ils sont là di taxaw ci personnellement pour jéem a xaj nit ki liberté pour jéem a xaj nit ki nangam pour dugg ci intimité mais bii collectif bi ak proposition bi xam ne ki mu ngi koy joxe pour suñu Sénégal pour ñëpp ñu bokk ko jamais ñu d'accord ci pourquoi nos secrétaires ne se soignent jamais ici un pourquoi nos enfants duñ mës a jàngee fii ñaar ma xam ci olof pourquoi su njiit du duñ mës a fajoo Afrique benn lu tax su njiit seen doom yi duñ mës jàngee fii ñaar lu tax suñu njiit yi ah duñ mës a lekk produit yu jógee fii ñett lu tax su njiit lépp ñu ñoo fi gën a riche te ñooy gën a pauvre ñeent juróom lu tax ñun lépp lu ñu am Europe jéggaani ko dem yóbbu ko dëkkam par force te duñ ci mën dara ñett lu tax ñoom Europe seen militaire ñoo di présent fii te suñu militaire duñ fa présent juróom-benn lu tax ñun suñu doomu réew mënuñoo gagné marché bitim réew te waa Europe ñoo fi di gagné marché bi ñun ñàkk a a sa bopp ak ñàkk a gëm sa bopp mënu koo weesu. mënu ko weesu te kenn teguñu ko nag moo ñu ñu diriger kenn teguñu ko nag moo ñu tey jii bu dee doo dépendre ci ay vaccin yi xam ne États-Unis la jógee ay France ku ne xamul mën naa am ñoom seen dëkk ay vaccin yu baax vaccin yu ñu ne ànd ñun baaxul peu importe dara wóoruñu ci.

jariñu fa 100 francs francs Afrique fa 100 francs francs. ñu xamné ci ni la jëm ñu xamné ci lañu dem ñu xamné ni France mom la ngén bar moom la que di gën di léegi pour ñu nous maté ñun pour ñu ni néwal ñun pour ñu nangam nangam au contraire suñu gouvernement suñu état protéger protéger nga ni de voix nga protéger jeune nga xamné yow bëgg mais au contraire ci la comme nun naan dañ koy def tey kilifa ut ay audio yu bon ut ay ay montage ay vidéo yu bon ñëw ut ay nangam yu bon génne ay vidéo de pour yàq sa der ne la amatoo crédibilité ay waay waay waay tey ngeen a bañ a dugg ci affaire yooyu noonu ndax ci débat yu futilité yooyu nu bëgg a dugal mais dañ ko nangu parce que tey ji bu dee ci débat yooyu ngeen bëgg a dugal xam na ñaata ministre ñoo fi doon dem ay tournée ñaata ministre de la jeunesse ñoo fi doon def ay tournée yóbbaale seen i copine xam nañ ko te ñu suñu yoon new ci c'est leur vie on

bañal ko boba yenn yenn yenn yenn yenn produit alimentaire yu bon ñuy proposer fi amati parce que boba tout ça c'est dara na bouti ñu ne na leen fexé ba freiné affect ci développement pour que mu nek stade bu mu nek du mësa développer mais cette fois-ci donné day changer may y'a ñal les jeunes mo xam affaire yi nek mo xam lepp fo nek bala ngeen di xam ne dirigeants yi yamono ak ñom bala ngeen xam ne suñu dirigeant yi gëmuñu seen bop ba tax leen di gëmno seen bop nga am wajur wu ba wara dem hôpital ñoom seen doom rek bu ñu feebaree mooy loolu ab ñaata doomu président fii ñoo feebar gaa yi jël avion rakk suñu kérosène lakk suñu naan yóbbu leen immédiatement wala sax bu nekkee daan teg gaa yi baare foofu yëpp barigate ko kenn du jàll. bu ñuy dem sax da leen di escorter par rapport seen sécurité ngeen baal ma waa Almadies borom baax ngeen mais du waa Sénégal yi fa dëkk moo tax ñu koy protéger étranger yi fa nekk moom moo tax dañ koy protéger ngor ay gendarme nangam. demal cooray caaroy rek bo dem ba caaroy doto gisati ku xolal ku taxaw ne day yor arme pour protéger wala protéger secteur boobu non doo ko gis ni ginaaw ray ni fenn donc il est temps que ñu gëm suñu bop il est temps que tamen mu wax gi nga xam ne ni moom mooy bi wallahi mën ngeen ñu ci génne mën ngeen ñu ci génne de magistrat yi surtout yu gëna nek jeune wallahi mën ngeen ñu ci génne il est temps que ñepp jël seen responsabilité parce que dafa am na xam seen collectif ñoko ko bokk te li ngeen xamul li ñuy teg ñoom mun na leen koo teg ëllëg ndax ñoo xam ñu leen koy ndox ñu wax loolu tey ñoom jël nañ ay mag teg leen ci seen kaw ñuy def lu leen neex pour ñoom waaye ñoom buñ fi jógee est-ce que ñun bu nekkee saay-saay du jël yéen mag yi ñun utiliser ko contre ñoom bàyyiwuñ ci xel de ñoom bàyyiwuñ ci xel tey boo jëlee PDS arrêté Ousmane Ngom ba tey waa PDS ñaata yoon la leen poussé cher mënuñu mënuñu xañu manifester fi nga ndax rek à l'époque ñoo nekkoon ci nguur du leen neexoon def mais xalaatu woon ne bés danañ ko ñàkk te yéen magistrat yi da ngeen liggéey am seen am seen xam-xam ak seen mën-mën wallaahi wal kitaab yi kum neex kum naqari di ngeen fayoo kum neex kum naqari di ngeen am kër kum neex kum naqari di ngeen fay courant di ngeen fay ndox kum neex kum naqari di ngeen am oto kum neex kum naqari bu ngeen feebaree faju ta di ngeen am sécurité kon ngir laay rasulu ñu ñuy seen rak ak seeni i nangam ngir laay rasulu bu leen pour bëgg a satisfaire Macky Sall kese bu mu tax ngeen ñuy sacrifier ngir yàlla ak yónnenti ba ñun dañuy taxaw ci beneen bi yor ay lingoo mag ki pañe di daw di jaayi pour mun a joxe dépasse suñu kër yi te pourtant naar bu ndaw bu jugee fee ne moom

PDS est fier frère fu la neex bokkal fu la neex fieral mais ñun Sénégal moo nu ñor mais dama ne PDS d'une manière générale ba ñu def seen arrêté Ousmane Ngom jàppoon nañ ne bés loolu du leen dab tey dabaat na leen kon moo tax ëllëg lu waay def na nga xam ne bés mën nañ ko utiliser contre yow na la dab moo tax lu waay def rek nga def na nga xam ne ni pour ñëpp ko bokk pour intérêt ñëpp la foofu laa waxee waxuñu ay problème mu personne ay laawaat loolu rek laa moom lu may wax donc gars yi maa leen sant di leen gërëm di wax ne ah li ci baax yéen la lu ci yées ah, lu ci yées ñun la sunu borom mooy dogal nit du mat di leen ñaan jàmm ak di leen baal ak di leen baalu ak di leen wax ne ah képp ka nga xamante ni ñu ngi waajal benn émission ba nga xamante ni du naan jariñoo suñuy mag mooy xool mag yoo xam ay patriote la nekkoon seeti leen bu leen seetee bala ñu wax librement. la leen xalaat ci Afrique la leen xalaat ci Sénégal ñoom yan expérience na am ak li leen dund très bientôt émission boobu nañ ko def du question nag émission noonu ay journalistes yi dañ leen di tegal ñoom ñooy wax fu ñu jaar pour ndaw yi mën cee jàng bari mu nuy rëcc bari mu nuy loolu nag dina am ores moon dina am ci sama chaîne Ndongo Diop Patriote bi te képp ko mën a def feneen defal koo mën a xam ne kii mag la monument la fu mu dëkk mun na jox ay leçons pour su ndaw yi pour que bu dul mu yenn ñu mën koo teel am bañ koo ñàkk dama nga seet ko ñu mën ci profité def ko en direct boo paree nga partagé ko ndaw ci mën cee jàng mën cee seetaan ñu gën a xam suñu réalité na baax xam naa ne tey wala suba wala gannaaw suba nañ ko commencé je ne sais pas encore mais je crois bien que suba lay démarré ñu seeti à partir de vingt benn mag waxtaan ak moom moom mu wax ñu fan la jaar nan la gisee xolal li nga xamante ni moo commencé am ci ndaw yi ak vision bu nu am ci suñu Sénégal loolu très bientôt dina am ñun nag ah. mag ñi ñooy wax seen xalaat rek li wax ñoom baax nañu lu ñu ci mën a tànn lu baax ñu tànn ko ci lu ci safaanoo ñu bàyyi ko ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax di leen nuyu di leen sant bu baax a baax merci gars jaa jëf